asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan actuellement ak foo mën a nekk si àddina bi di la ñaanal jàpp di ko sàkku ci yow mu mel ni que nag ñu ngi biir arène nationale li ñuy fen di xam ngeen ko bu ñu arène moom xel si li muy dem mooy làmb làmb ji nag kañ lay am le 10 mars incha allahu rabbi 2024 lay am fii ci arène national ak kan Teranga Production buñ ko waxee nag. jibi seet jibi Pogba moo nekk ca bopp ba ak ñi moo àndal ñëpp di liggéey ñu mel ni ki DC Thierno Sall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit staff bi mu àndal yëpp ñoom Cheikh Lambaay yaa ngi dégg ñoom euh, euh, nu mu tuddati Khadim Tine Cheikh Sey ñoom ñëpp su ma limee dinaa juum ah yéen ñëpp maa ngi nuyu di nuyu tamit Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne ni moom mooy fisale grand combat yi ci Teranga Production mu mel ni ki nag tey. fi ñu jëm ak yéen ak Njaga tam maa ngi koy nuyu Njaga moom tamit ku jàppale Jibi Pogba la Njaga Seck maa ngi bu baax a baax tey nag yaakaar naa boo xoolee dañu nekk ci dernier virage bi balaa ñoo dem ci le 10 dernier virage bi mooy ci combat yi lañ jëm mais nag comme heure bi dafa gaaw te daa jegeñ li ñuy def mooy rek ki nga xam ne nii moom mooy jëf jël ana jëf jël ah jëf jël ñëw ok ana boyloo aja boyloo ñu def kookoy boyloo kaay mu mel ni kii nag ba tey rek di fàttali leen ne combat bi ku ne xam na ni Buur Sine bu Bawol la ak Blindé bu Parcelles Assainies mu nekk combat boo xam ne bu nar a metti lay doon drapeau Ibrahima Diop. borom Kajoor production ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moom Ibrahima Diop di wax jib seen ne ko def nga lu rafet a rafet ndax nag reconnaissance am na njariñ mais delloo nit njikkal tamit am na njariñ mais tamit ñu ngi nuyu tëggkat yi ak waykat yi la presse tamit ñu ngi leen di nuyu mais di nuyu tamit sécurité bi ah waa jeunes yi ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax. acca Boylo jaar naa. dellu siyaar. bàyyi la nga nuyoo. auzu billaahi mina shaytaani rajiim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur sant samay ñaari waajur jaanal sama pap fi tëdd yàlla gërëm fi mu jóge xam di gërëm sama coach américain di gërëm gaa yi fi toog yëpp di gërëm tamit promoteur bi di ko sant bu baax xam nga sa adversaire ñëwul loo koy wax tàppet la mooro du ñëw ragal mooro du ñëw ragal la mooro du ñëw waaw te promoteur da ngaa jum booy loo boobu noonu Ndongo Lo la rakk Ndongo Lo la billaahi wallaahi wa damaa mën a bëri damaa mën a bëri man dama xam ne dama mën a bëri c'est la première fois nag sama première combat arène mi ngi nii te jouru làmb ji xam ne damaa mën a bëri billaahi damaa mën a bëri ku xam Ndongo Lo xam ne dafa mën a bëri te li ne ci xamul lu jewexe li ne ci xamul lan sët a koy doondu te loolu dafa ne ci man billaahi sama maam du mbër sama mag mbër la waaw maa ngi woo gars yi di woo waa ku ci mel ni Youssouf Agnana xam nga Grand Maron maam Diarra borom 26 maa ngi ci combat bi sama mbokk ndongolo maa ngi koy woo ñëw jàpp ci combat bi baax a baax waaw. waaw ñu bokk ndey ak baay waaw billaay moo tax ndaanaan la man daanaanu ndaanaan la man ko sàmbaar bi lañ may wooy incha allah acca rakku ndongoloo la ndeysaan booyloo waaye ndongoloo am nga mag ju